di mbokki jullit yi mbokki taalibe maa ngi leen di nuyu ci turu sëñ Muntaqa saahibil himmatil aliya wal xalifatil aami lil muridiya di leen jottali ci ndigalam kàddu yi di ko tàmbalee sant sunu boroom minu defal fekke ak tal di ndokkeel jullit yépp di ndokkeel sëriñ bi xaasatan di ko ñaanal yàlla mu gën ko sàmm aar ko kattanal ko mottalil ko mbooleem naal yi innahu ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir di fàttali mbokk jullit yi yépp ne weer wi passé la ngir gën a jege yàlla ak gën a sori safaan sunu boroom farataal ci nun woor ko ci laaya bi ñu jàngoon ci gannaaw di laayab yaa ayyuhal ladiina aamanu kutiba aleykum siyaam ngir nu am taqwa te sax ci taqwa di loo xam ne ku ko am am lépp ndax day may xam-xam wattaqullaha wa yuallimukumullah di may wërsëg wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min xaytu la yaxtasib day defal jaam bi fu mu mën a jaar ba mucc ci njàqare àddina ak alaxira ba noppi wërsëgal ko wërsëg wu mu sa toq ci xelam defal ko ci ay mbiram ak jàpp ndal tey ak ëllëg yajal lahu min amrihi yusra di taxit ba yàlla faral ko ay bakkaaram réyal ak payamit lool wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra ak yeneen ngëneel yu aju ci moom ci wàllu musle ci sawara ak di ci ajana ba tax na mooy nattukaayu ngëneel ngëneel wari su seete ci gën a baax ay waa ak gën a bari wërsëg ak ëpp xam-xam ak ëpple lu man di doon ak jiitu ca lu dul ak ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum ku la gën a ragal yàlla ku ko mën a jur ak ku la man di jur loo mën a am ak loo mën a am lu man di ñàkk moo la gën fa yàlla bu dee ci nit ñi nag loolu mën naa bañ am muy weer woo xam ne sëñ bi mag bi bàyyiwoon na ko xel lool fonk ko fonk lu ko lool jàppe woon ko gan gi gën ci gan yi di gan goo xam ne lim àndaale lépp mbégte la ak dolliku di gan goo xam ne liñ koy ganalee mooy topp yàlla ak njub attaati wassadad kon noo ngi jottali ñépp digal sëriñ bi jëme ci ñun taalibe yi ak laabiire gi muy jëme ci mbokki jullitam yépp te mooy nu gën a farlu ci rafetal sunu diggante ak sunu boroom ci xeeti jaamu yépp niki julli saraxe joxe aw ñam jàng alxuraan ñaan jeglu rawatina woor nga xam ne weer wi mooy wi mi nekk farata yonent bi sallallahu alayhi wa wa sallam wax ci lu rëy ne man saama ramadana imaana wa ihtisaaba gufira lahu ma taqaddama min dambih ku woor wooru koor te gëm yàlla rekk tax ak sàkku tuyaaba jéggalees ko la jiitu ci bakkaaram ci kaw nag muy moytu bakkaar yu mag yi tuub leen te bañ caa dellu ki ne man de lu ma sàggan sàggan koor gi moom dana fexe ba li ma daa def wala yi ma daa def kenn du def kenn du gis ma def ko ci kooko bu yaakaaree ak njéggal mi ngi nax boppam ndax tuubam sellul tuub ga dafa ànd ak fas yéene delluwaat ka ca fas yéene wu ca delluwaat koor ak lu dul koor kooka sañ naa yaakaar aka a séentu ak njéggal ak sax lu weesu ak njéggal te mooy bu yomal xiyaamee ñaawteefam yépp yàlla wooteel ko ko aw yiw ndax yàlla ko dige te nag inna allaha la yuxlifu almiaad moone ne illa man taaba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim xasanat wa kana allahu gafuran rahima te mi ko wax gannaaw bum tëkkoo ñiy def yenn ci bakkaar yu mag yi ba wax lim leen di xaare yaakaar nag warul di tàggoo mukk ako ragal ndax ragal mooy tax sax ci njéggulu te jéggulu ak jaamu yàlla la giirug dund lay doon deesu ko weesu mukk buñ ko doon weesu yonente bi gën a yeey ci weesu ko te musta tàggook jéggulu giirug dundam te mooy borom may yu rëy dale ca inna fataxnaa laka fatahan mubina ba ca wa yansuraka allahu nasran aziza sëriñ bii nga xam ne moom la defoon royukaayam booleeg di ko liggéeyal ba yàlla faye ko lii mu am nu xam ko te liñ xamul moo ëpp ni ni doomu aadama lotte ci lim cant yim sant ci may yi ko yàlla may faye ko ko ci biir xasidaam yi ni la lotte ci lim lim ci jéglu yàlla kon ñun taaliba yi kenn waruñoo raw ci jégglu ak jéggale ak suturaalante ak dimbalante ak bàyyi xel ci laaya bii di wax ne saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ardu uiddat lil muttaqin alladina yunfiquuna fi sarraai waddarraai walkaazimiina alxayza wal aafina an innaas wallahu yuhibbul muhsinin yàlla na yàlla yombalal jox weer wi ak xam tam nangul nu ko noog jullit yépp nu fekke ko at yu bari ànd koog tal ci teewaayu suñ kilifa gi ak kiifay jullit yépp ci barkeb sëriñ bu mag bi kul amin wa antum bi kulli xayr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu طول لنا عمرنا وسهل لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق